And the dangerous heat that is hitting Metro Detroit right now. We're looking at actual time. Uh, uh, ci fondation Khadim sunu asir Serigne Touba. man damaa nekk ci post ndey daara man daal jàppale daara yi man moom moom moo nekk ci sama xol ndax maanaam moom mooy moom liggéey. liggéeyal Sëriñ Tuuba liggéey fii ci Amérique moom sunu daara yi la ak kër Sëriñ Tuuba yi ndax Cheikh Mouhamadou Mourtada dañu fee sampal liggéey bu rëy. waaw bërëb bii ñu toog de fi mu ne nii jàkka la wante ab église moo fi nekkoon euh, barab bi ñu toog sax moo nekkoon seen jul seen fi ñuy wax jullikaay euh, lii ci sama ginnaaw ñu koy wax euh, minbaru jàkka ji fa lañ doon defee seen li ñuy wax li ñuy wax baptiste liggéeyal sëñ Tuubaa moom moom mooy njëkk mooy li njëkk te mooy mujj man man bokk mom la fas yene, moom laa fas yene, njëkk waaw ak fuma man na ci adina liggéeyal sëñ Touba te ba may sangu su te heure bu ma dama nan commencé guma ma guma sax tam luma, luma def def te defuma dara tamit sëñ Touba moy def li daayira bi mom li mu jëriñ dafa manam li ëpp solo ci nit. mooy diine bu ñu ko waxee diine man ñun ay jullit lañ donc diine lislaam donc booy li gën a ëpp solo mooy tabax nit tabax nit mooy jàngal ki nit ki diine yee ko ba mu xam fi mu mën a jëm ba tegu ci yoonu siraatal mustaqima loolu mooy euh, tabax nit te daayira bi li muy def mooy dañ cee am part bu am solo mu ñuy wax euh, culture bi euh, xale yi fi juddoo fexe nañ ba am ay jàngalekat yoo xam ni ñoo leen di jàngal chaque samedi ak dimanche ashhadu an la ilaha illallah